te dañuy dem yóbbul leen seen kër ñu di ko fa signé. moo tax ma ne lii may wax balaa doon neex. mais tey avec la digitalisation euh, mun nga toog sa kër di liggéey. c'était avant la Covid <laughs> yooyu dafa yomb. alors euh, da nga wax sànq promise. waaw. mu nekkoon euh, programme bu. de développement de la microfinance islamique bu bu am solo. Mm-hmm. c'était c'est bien que Sénégal commencé di explorer. euh, cette voie de la microfinance euh, islamique. Mmh. Alors, euh, le programme dafa waroon a arrêté en mai 2024. Mmh. En mai 2024, je mhm, pense. Mhm. Mais je vois que arrêté wuñu programme bi. Mhm. Euh, on a nommé on a nommé une nouvelle directrice. lan le programme dañ ko prolongé. non un nouveau directeur xam nga en fait programme bi dafa dem ba benn moment mu jeex bi nga xamee date bi ñëw délai bi ñëw na. il fallait maintenant ñu notifier ña fa nekk ne leen programme bi jeex na. mais mais mais d' abord programme bi. da ngeen ko renouveler. non non renouveler guñ ko woon. renouveler no mais dañ ko renouveler actuellement. waaw waaw actuellement renouveler nañ ko. te un nouveau programme léegi nag dafa am lu uute ci diggante bi bële ab projet la woon boo xam ne te inscrit dans le temps loolu nag lañuy bañ bi yoon ba euh, son excellence le président ba Diomaye dal di jël décret changé ko def ko programme. def ko euh, administrateur autonome comme agent nga xam léegi day continuer léegi dootul am échéance temporelle. te bailleurs yi ñu ngi leen di accompagner ci loolu. ah bi bien sûr parce que dañu leen intérêt waa bi di recevoir naa leen pour ça. Mm-hmm. alors diggante boobu nag fekk am na yu bëri yoo xam ne euh, jarul ñu ciy xóot mais il fallait corriger nag parce que am na beaucoup de yoo xam ne euh, tegu teg maanaam melu doon ni mu war a mel comme jeex na nag nga profité defaraat. alors euh, bi instant bi nga xamee ne programme bi jeex na bailleur bi ñëwagul prorogé guñ ko léegi nag bi nga xamee ne tey jël nañu un nouveau euh, euh, programme nga xam léegi nekkatul programme de promotion de la microfinance islamique mais c'est un programme de développement de la microfinance islamique léegi ñu nommé un nouveau directeur ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ci nekkoon di liggéey de facto ils sont prioritaires pour être reconduits mais ça ne veut pas dire que ne dañuy reconduire ñëpp parce que dafa am lu dox ci diggante bi. la moo ci dox. bi nga xam ne seize personnes la ñu waroon jël ci programme bu njëkk bi parce que boo loo gis dafa am ay voilà. alors je rappelle y' a y' a quarante et un agents. Mm-hmm. yu doon liggéey promise mhm. dañ leen signifier mhm. la fin mhm. des prestation oui ñoom dans leur tête euh, programme bi jeex na donc ñu ngi nekk en attente ñu jox leen seeni indemnité ak yooyu mais le programme a été renouvelé si le programme a été renouvelé non par la suite waaw waaw d'accord mais au nom de quoi ñooñu fa doon liggéey dafa daan seen doole ñu duñ leen d'autant plus que c'est un programme boo xam ne euh, euh, Yaay Fatou Diagne moo moo moo ko habillé te ko réfléchir si avec des sénégalais ñooñu ñoo yor xam-xam bi ñoom ñoo yor euh, nu mu tudd savoir faire bi. ñooñu ngay wax ñu yor xam-xam bi de facto dañ leen di renou dañ leen di reconduire mais xam nga problème bi lan la. dinañ leen reconduire quarante et un agents yëpp. non pas quarante et un. lu tax. parce que daf ci am ñoo xam ne dañ leen recruter par la suite. am na ñoo xam ne dañuy tëdd seen kër bu weer dee ñu dem fayeeku te ñu liggéey. waaw mais loolu c'est c'est le fonctionnement interne. waaw léegi dama la bëgg a wax dama la jox exemple non dama eh, nga loolu li ma jox la exemple boobu promit ci boppam du dañ ko renouveler mais dañoo defaraat un nouveau programme corrigé ko. d'accord. xam naa yaa may dégg. d'accord c'est nouveau programme qu'on naa corrigé. d'accord. statut juridique yi bokkuñu. d'accord. premier bala nga amoon <laughs> yaa ngi dégg ak premier bi nga am bokkul bee ab projet la rattaché au cabinet pour wax la incongruité yi est-ce xam nga ne tey man bu fekkoon ne booba man maa fa nekkoon. wala boog ña fa nekkoon est-ce que xam nga ne du président Macky Sall moo leen waroon nommer par décret est-ce que xam nga loolu ci texte yi. ministre bi moo leen war a nommer. te le ministre qui devait les nommer parce que ci cabinet bi la bokkoon. kon ñiy wax xamuñu nu mu demee léegi ab administration autonome la. président bi boo xam ne président moom mooy nommer. président bi ki ko ki ko ki ko jiite. parce que warula la nommer ñi daan nekk premier du moom moo leen war a nommer. ki fi nekkoon ministre moo leen war a nommé dégg nga ay ministres yu doon xeex ak ministre ak directeur premier yu doon jàppante assemblée yooyu dégg nga ko yu mel noonu lay indi parce que une administration autonome une administration autonome. Mm-hmm. donc vous avez corrigé.